suñu institution di taxaw ngir aar suñu démocratie kon ñun suñu ñu wootee rek war nañoo mën a ñëw fu ñu wootee war nañoo mën a taxaw ngir ànd ak Sénégal yi nga xamante ne ñu ngi jóg ngir di wax ak Macky Sall lii mu bëgg ak lii mu bëgg a def ci jaay doole ak ci forcing ñu ne ko loolu du jàll. kon Macky Sall moo nekk koo xamante nekkul ku ñuy négocier la. Mhm. nekkul tamit ku ñuy waxtaanal. nit la koo xamante ne lima xam mooy rapport de force parce que man li ma yàgg wax. te yàgg koo gëm mooy yi ku ñuy xeexal la ndax tey jii nekk na koo xamante ne moom li mu bëgg rek loolu la yaakaar ne loolu moom moo war a am muy lan jaay nit ñi doole muy lan imposé li nga xamante ne moom moom mooy bëgg-bëggam te xoolul ne Sénégal yi fi ñu toll dañoo sonn parce que Sénégal métti na trop tey amul benn secteur booy tudd te amul problème muy ci wàllu yoon muy ci fépp nag kon tey li Sénégal yi bëgg nga xamante ne loolu la ñu desewoon comme espoir muy ñu dem ci ay élection tànn ki nga xamante ne moo leen doy tànn ki nga xamante ne am nañ ci moom yaakaar ngir mu continuer liggéey bi loolu mag Sall daf leen ko war a nangul daf leen ko war a respecté mais nag ñàkk ñàkk nag gi mu ñàkk mu ñàkk mm, bañ a nangu choix yi nga xamante ne moom la maanaam Sénégal yi bëgg a tànn ba mu ñoo imposé doole kon tey lépp lu ñu mën ci taxaw ci jàkkaarloo ak moom ngir xeex ak moom dañ koy def Macky Sall ku ñuy xeexal la. d' accord alors seetaan nga euh, li nga xam ne waxtaan na ko ak yenn ci taskatu xibaar yi wax lu jëm ci élection présidentielle waaye wax tam lu jëm ci au delà du 2 avril nan nga jàngate euh, kàddu bi nga xam ne yëkkati na ko. waaw Macky ni ma ko jàngatee mooy moom përeegul sax pour dem waaye ñun ba tey dañoo am yaakaar ci sunu ci nga xam ne ñoo fi nekkal ñoo ñoo yor satri constitution. parce que tey am na loo xam même bu ko bëggee def kon ñun Sénégal bu ñu jógee taxawu man gëm naa ne conseil conseil constitutionnel dina taxaw ngir ànd ak ñun ci décision boobu noonu. kon ñun ñooñu war a jóg mën a taxaw di ko yeneen dëkk yi doon defee wàcc ci mbedd bi wàcc ci kër yi génn ci kër yi wan ne ko Macky Sall carrément li nga bëgg bu ñu ko nangu li nga bëgg a def du fi amee waaye nag bu ñu toogee ku nekk ne sama yoon néewu ci nga toog rek ban say loxo dina at ak yeneen fukki at ak ñaar te loolu yaakaar naa ne waruñu koo may ndax lim ñu wan ci ak yor waxtaange lim wan ci ak jaay doole lim ñu wan ci jàpp ñoo xamante ne defuñu dara mu mu mu mu mu tooñ leen ñii nga xamante ne am na ñoo xam sax faatu nañ ci am ñoo xamante ne maanaam gert nañ réew mi sax ba génn ba dem am ñoo xamante ne ñàkk lañ yaakaar doon génn ba ba dee ci ndox mi kon damaa yaakaar ne loolu waruñoo may benn saa Macky Sall mi continuer benn minute boo xamante ne maanaam bu jeexee war na ko mën a continuer kon ñun li ñuy li ñuy jàpp mooy à partir le 2 avril Macky Sall nekkatul président de la république kon loolu dama bëgg maanaam képp koo xamante ne yaa ngi nekk citoyen nga bañ koo considérer comme njiitum réew parce que faratool la ah, faratool parce que bu ñu ko bàyyee ci lii mu bëgg ñu jàpp buumu jàmm te buumu jàmm jeex na fi am na loo xam tamit mbéjum kanam borom moo koy mën a fajal boppam kon damay woo Sénégal yëpp ñu génn taxaw jàkkaarloo ak Macky Sall xeex ak moom parce que Macky Sall ku ñuy xeexal la de loolu yàgg naa ko ku ñuy xeexal la. waaye altine wala talaata woote na dialogue ci jam ñaajo ñenn ñi am ñoo ñu muy waxal xam nga ñi nga xamante ne ñooy ay candidat ñoom ñi nga xamante ne ñoo ci am ay valeur yëpp kenn ku ci nangoo dem ca dialogue amul parce que xam nañu ay waxam wérul ay waxam tamit maanaam boo ci sukkandikoo maanaam jërul dóor sa doom kon tey ñooñu taxaw lànk ñun ñu ñëw mën a gën a gore tey jii lépp lu mu tënk foofu na xam ne ne moom ak ay complice ñoom ñoo ko fa tënk waaye ñi nga xamante ne ñooy concernant yi nga xam ñooy candidat yi nga xamante ne askan wi am na ci ñoom yaakaar kenn ku ca dem amul te képp ku fekk Macky Sall def complice nga ci lii mu bëgg a def képp ku fekk Macky Sall ci li mu bëgg a def rek yow da ngaa complot Sénégalais yi ànd ak Macky Sall pour maanaam li nga xamante ne seen seen seen àq ak seen yelleef nga bëgg leen koo xañ kon nag loolu la Sénégal yi ubbi seen bët xool xàmmee ràññee te xam ne ñee fa dem ñoom ak Macky Sall réerawuñ kiif kiif parce que mënoo ne damay waxtaan ñi nga xam ne bokku ci jeu bi bokkuñu ci yi amuñu licence amuñu dara ñoom ñu ñu ne ñoom lay wo pour waxtaan ak ñoom amul sens parce que li am sens mooy candidat yi ci boppam nangu woon ko toog ak moom wax wax ak moom te comme que wuñ ko rek xam nañ ne Macky Sall ay waxam wérul. d'accord ñu lay la waa tey dañu ñëw fii ci manifestation bi parce que ñun ku ñu xam ku ne xam ne fu ñuy xeexee Macky Sall ñun ñoo fay ñun ñoo fay jiitu quoi. tey nag bis la boo xam ne bu am solo la boo xamante si nii sénégalais yi jàpp naan sa génn bi xaw naa des parce que dañoo desee xam li nga xam ne moom la Macky Sall def li Macky Sall def moom moo gën a garaaw militaires yu jël armée dem jël pale bi li mu def moom moo gën a garaaw parce que coup d'état la def parce que dañ koo fal démocratiquement mu toog ci pale bi war a organiser élection lànk ne du ko def loolu même réew yi dictateur sax dinañ organiser élection bu ñu koy sàcc daal koy sàcc lii nga organiser élection sax après sàcc ko moo gën bañ koo organiser parce que ñàkk organiser élection dafa garaaw parce que bis bii rek la sénégalais yi amoon muy bisub suba bi ñi nga xam ne mënuñoo taal pneu mënuñoo sànni xeer mais ñu ngi doon xaar la 25 février ñu mën a gën seen i carte dem wateel ki leen neex loolu nag benn nit moo leen ko xañ ci lan la ko teg mooy ragal mooy def ay tuuri doona yoo xam ne dafa bari moog waa këram mu bëgg koo xamante si nii dafa daf ko bëgg mu garanté ko mu tànn ab candidaam ñu koy wax Mbido Ba mu nekk nit koo xamante si nii kenn xamu ko parcelle xamuñu ko mooy Mbido Mbido la tudd Mbido Ba ak Guinée la Mbido Mbido Ba la mu tànn ko mu ñëw waa këram sax xamuñu ko waa parcelle xamuñu ko kenn xamu ko mu wër réew fukki yoon ak juróom ñaar kenn xamu ko sa waay gis na kart gi du leer mu ne naa wax ak mu sell bi mu sell bi ko ñun jomaay lañ tànn parce que mënoo ragal président Ousmane Sonko ba par bëgg a ragal jomaay léegi koo soxla koo soxla yow yow léegi kan nga bëgg a bëreel léegi fatu fépp nag mooy mënuñu may Macky Sall lu ko neex def ba pare ñu toog sédan képp ku sédan rek complice nga loolu moo war ñu ñëw fii tey comme ni ñu ko yàgg defee ah parce que ñun moom dañ ñee heure bu nation bi heure bu peuple bi soxlaa rek dañuy répondre l'appel du peuple muy 5 heures du matin 4 heures du matin 3 heures du lii farata gënu koo ëpp. farata ëpp ko lépp lu ñuy def si Sénégal damaa gëm ne lii moo ëpp farata mooy xeexatu réew. parce que Serigne Cheikh koo waxoon nee na ne nii réew moo la tax a jóg nga gis ma nga bañ maa gis. xamal ne am nga sama ndigal te naa ko fas yéene ànd ak yow kon loolu moo am c'est la loolu moo ñu waral rek ñu ñëw ndax Macky Sall dafay bëgg jaay doole mhm. bëgg def lu ko neex ñu ne du ci dal combat bi nag dañ ci jaam yàlla liñ bëgg yombul mooy soppi am réew soppi am réew du ay caaxaan loolu ndax peuple bi soo xoolee ñëpp ay ndaw lañ fii gisoo bonu kaar gu weex ñëpp ay kaw gu ñuul lañ kon nag euh, ndaw lu mu nekk rek yaakaar na cay nekk parce que lislaam muy si Amadou Bamba xaalis it mu walit sahaaba yi nga dégg yëpp mag ñi baax ñi nga dégg yëpp liñ def lépp nit ñi dañoo xamul li ñu def bañ koy def ndaw lañ nekkoon amuñ amuñ sa 40 ans maam bu Bousso si Al Khadim maam Laaji Malick Cheikh Ibrahima ñoom ñëpp liñ def ba tey taarix bu ko tudd ñu topp leen gëm leen yaakaar ci wàllum ngëm-ngëm bañ koy def amuñ 35 ans kon encore une fois may wax rek jeunesse bi président dafa wax lu am solo ñu ñu si dernier virage Macky Sall ñu ak Macky Sall ñu ngi si dernier virage mhm. dernier virage nag mooy nañ taxaw nañ gën a taxaw combat bi gars yi nañ xalaat ci dee presque 80 personnes faatu nañ ci loolu rek kenn mënu ko ba kenn mënoo ko jëlee ay milliards gaa xalaat leen ñi nekkoon ci kaso yi xalaat leen ñi nekk ci biir kaso di génn guñ te seen yaakaar mooy élection yi am ñu génn si jàmm ak salaam kon may wax Sénégal yi rek résistance mot constitutionnel la constitution moo wax ne Sénégal bu nekk am nga droit nga résister face à l'oppression résistance c'est un droit universel charte universelle des droits de l'homme dañ ko ciy bind kon encore une fois ñuy wax nous appelons les Sénégalais à contre notre seulement l'incarnation du mal c'est Macky Sall. merci beaucoup moom mooy problème Sénégal loolu képp la. problème bi nag comme que moom la te xam nañ ko. nañ ko sériser ab góom la. nañ ko dagg sa ani teg ko nee da ko def parce que moom bokkul ab spectateur la. moom ab supporter la. am na mbërëm bien sûr mbërëm mooy lan mooy Amadou Ba moom amul sens parce que ki mu takk wala ki mu àndal gars yi bëgguñ ko gars yi gëm Sénégal xamuñ ko ñëw na ba ci stade bi indi na mbërëm mu xool xam ne kii mu a yàlla def na li muy def dara mu ne léegi dañoo tas combat bi dama ab Sénégal la xool leen rek yéen Sénégal yi est ce que man Diop Taïf ma faral am Ama Baldé wala am Modou Lô ñu dem ba ñu war a sëgg bëri ci stade bi ma jóge fee wàcc ci tribune bi ñëw daane bëri bi du am est ce loolu yem na maanaam loolu Macky Sall def nag. d' accord ñu lay sant bu baax a baax. ñu nga sànni si kàddu rek nga sànni si kàddu rek sa présence euh, ci rassemblement bu F24 bi waaw di vraiment di nuyu Sénégal yëpp sénégalais yëpp di di kontaan ci manifestation bi nga xam ne moom tey mobilisation bi nga xam ne moom la gars def c'est vraiment am na solo di invité aussi sénégal yëpp pour euh, quinze heures beneen mobilisation mobilisation bi nga xam ne moom moo am ah. terrain Sacré-Cœur beneen terrain sacré ci beneen bi vraiment ñi ngi invité sénégalais yëpp ñu ñëw euh, assister waat encore ci manifestation boobu alhamdulilah manifestation bi ku gis mbooloo mi fi nekk. réussite bu mag a mag a la président Macky Sall ñi ngi koy ñaan encore une fois li ko fi dese bariwul ñi ngi koy ñaan. ex président ngi koy ñaan vraiment mu organiser ay élection le plus rapidement possible euh, Sénégal dese wu ko dara Sénégal nommé na ko lépp depuis 2000 depuis 2000 Sénégal mi ngi koy nommé ay poste nekk na fi ministre des mines nekk na fi avant le directeur Petrosen Sénégal. def ko encore mu nekk ministre des mines encore mu nekk ministre de l'intérieur encore mu nekk premier ministre du Sénégal encore yàlla def ko mu nekkaat encore euh, euh, président assemblée mu pare ci loolu dem opposition en un temps record deux ans et demi yàlla may la nga nekk président euh, nga nekk président nga pare ci loolu yàlla mayaat la deuxième mandat ñu nommé la président Union africaine vraiment yàlla def desul ko dara Sénégal yi desituñ ko dara lépp am na ko amul titre post bu mu amatul à part poste yëpp am na ko vraiment ñu ngi koy ñaan encore une fois mu jàppale sénégalais yi organiser ay élections le plus rapidement possible normalement bu lépp jaaroon yoon suba la ñu waroon xëy dem voter loolooy li yoon loolooy normal mu xañ ñu ko ñu ngi koy ñaan mu génn par la grande porte ñu ngi koy ñaan parce que ñun donte Sonko la ñu bëgg donte la ñu faral man de personnellement Macky Sall dama koy yéene mu dem par grande porte parce que mooy suñu président vraiment ñi ngi koy ñaan mu bañ a déglu faucons yi nga xam ne ëllëg bu problème amee ñoo njëkk daw ñi ngi koy maan mu bañ a déglu ñi nga xam ne dañ koy lor dañ koy sànq ñi ngi koy ñaan encore une fois comme dafa bëgg ñu koy ñaan ci njekk président Macky Sall ñu ngi lay ñaan encore une fois ci njekk te dimbali ñu te yàlla tax sénégalais yi sonn nañu économie bi instant yi bloqué na pourquoi ñëpp a ngi taxaw moom bi yëpp ngi taxaw kenn mënul investir kenn mënul def dara kenn mënul génnee xaalis tant que élection passé wu ñu ngi lay ñaan encore une fois ci njëkk kom ni nga bëggee ñu la koy ñaanee nga dimbali ñu nga organiser élection bien avant le 2 avril et que le gañ gagne def ko ci transparence sénégalais yi voté le gañ gagne bañ bu ñu la déggee sa da ngaa ne euh, nguur yàllaa koy joxe bu fekkee li nga wax noonu gëm nga ko incha dimbali ñu nga nga nga organiser élection le plus rapidement possible le meilleur gagne di ñaanal nag Ousmane Sonko di ñaanal Bassirou Diomaye Faye di ñaanal détenu yi yëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci prison yi di leen ñaanal yàlla génnee leen foofu le plus rapidement possible di ko ñaan moom tamit mu doxaat ci loolu que détenu yëpp li ñu libéré leen que euh, Ousmane Sonko ñu libéré ko le plus rapidement possible Bassirou Diomaye Faye ñu libéré ko le plus rapidement possible ñu organiser ay élections libres et transparentes et que le meilleur ngi koy ñaanal nag ñu ngi koy ñaan encore une fois vraiment mu mu génn par la grande porte parce que tey jii même bu sama candidat gagné moom la ñaan Ousmane Sonko gagné am na lu nga xam ne Macky Sall def na ko TER kenn du ne Sonko fi def bu bu jëloon ko ëllëg réew mi euh, ñëpp xam nañu Macky Sall la ko def stade stade ak yeneen ak yeneen ak yeneen moo ko def donte nag ci régime am na bilan bu nga xam ne tey jii maleureusement bilan bu nga xam ne ci régime am la amee événement yi fi xew ñi fi dee ñi fi tëjoog pour la première fois de l'histoire politique du Sénégal moom autant de détenus politiques yu am vraiment ñi ngi ñaan ñëpp génn Sénégal élection am le meilleur gagne et que vraiment réconciliation nationale am parce que réew mi dafa soxla réconciliation nationale encore une fois aussi maa ngi profité ci occasion bi parce que sànq dafa am benn événement bu mu fi gis. voilà euh, euh, euh, waaw effectivement mu nekk benn message bu important bu may wax lu ma gëm la Khalifa Sall. man gëw ma suñu ennemi la man gëw ma ko man ça m'engage li may wax di ñaan patriotes yi ñu xam ni que vraiment nañu nañu suñu kenn mooy kenn la ñu xam ne moo moo moo moo moom moo fi war a jóge muy Macky Sall looloo am solo mais xalifa Sall encore une fois ak i ñeneen ak i ñeneen ak i ñeneen nañu séq ak ñoom jàmm doxalante ak ñoom jàmm parce que ñu ñëpp ay frère lañ seytaane moo dugg seen diggante c'est ki dugg seen diggante encore une fois vraiment ñëpp xam nañ bugguma citer tur mais ki leen boole moom la bëgg boole encore Sénégal yëpp xàjjale ñëpp nañu muus bu ñu nangu encore une fois li bu ndafa jaxase ñëpp bu ñu ko nangu man encore une fois patriote nañu bàyyi bu ñu gisantee ñu nag waa xalifa bu ñu gisantee nañu ànd nekk benn fii tey ji ñëpp a war a nekk benn ñëpp a war a ànd jële fi ki nga xam ne moom mi nga xam ne mooy mooy problème mu Sénégal mooy président Macky Sall et que et que et que après le meilleur gagne. ok merci beaucoup sama di a baax di leen fàttali rek ne a ngi maa ngi leen di fay. maa ngi leen di fay donc je parle au nom de l'ADER qui est l'Alliance pour la démocratie le patriotisme et l'émergence économique donc dañoo ñëw tey pour wuy si appel bi nga xamante ne moom la société civile woote li tax ñu wuy si ko c'est parce qu'on ne contre la forfaiture on est contre l'injustice on est pour le respect des dispositions de la constitution boobu nga xamante ne moom la exécutif bi bëgg a violer je pense que décision bi nga xamante ne conseil constitutionnel jël na ko pour le respect de ces dispositions là le pouvoir exécutif n'a aucune prérogative pour violer cela looloo nous sommes contre le report des élections présidentielles et nous sommes pour la fixation de la date des élections présidentielles. Loolu, je pense que c'est la moindre des choses qu'on peut attendre du pouvoir exécutif. Je vous parlais de Macky Sall. Il faut que. ñu bari nag lu tax bindul communiqué ma ne ko communication daa bëri ay fan noppi wax la wax wax la war a waxte waxoo wax la war a waxte waxoo mooy la ma waxoon nan ca dellu te génn ci divertir yi ak kàcc yi ñu pare gam ñu waxoon ak APES looloo fi nekk. nañ liggéeyal sëriñ bi nañ xeex ak Macky ñaar yee fi nekk moo war bépp sénégalais. diir gi ñuy wax bu dégg yooyu xaaral ma ñëw. Macky nite wul. 2012 ñëpp a nekk ci ginnaawam mais si luy sewul. bu àdduna bu soñ bu réew mépp nekkee sa ginnaaw man ba mu ba réew mépp nekkee ci ginnaawam dañoo daw 3 mois man ma def réccu xam ne kii attanul ay dàllam ay nagam màndi siwul naan siwul ma arrière man def mouvement réccu xam ne kii attanul ay dàllam ñu dox tuuti xaaju sénégalais yi ba ko ñu dox tuuti ñi muy ñamal rek ak di seddoo ñoom réew mi des ci moom ñu dem ba ci yàgg ña koy ña muy ñamal ak ñëpp ànd ko ba moom bu doon nit ku nite war a reculer ci nit nitay garabam waaye nit nitay garabam waaye Macky ak nitay moo nekkul ci moom day lekk ci bool bi ban jàpp loxo bi yëlëb ko li wutale ña nekk dalal xel ak ñu nekk ci kër yi ñoo bokk nu leen yàlla binde waaye am xel mooleen leen wutale kon Macky dalal xel mooy këram waaw loolu mooy dëgg nit boo nekkee ci mbir gestu gisoo kenn nga war a rus rikkile si lui sa génn ci li nga nekk xam nga ab dof bu këfee ab liir yéeg ci kaw étage dinañ ko traité ñetti façon traitement bi jëkk mooy am ñu jàkkaarloog moom di ko nax naan ko aayoo nen ne baak di ko baax pour jot ci bi mais am na ñeneen ñoo xam dañuy laal ay matelas pour bu sànnee liir bi jël bi bañ a dina am beneen équipe commando bu koy yoot pour maîtriser ko ñii bañ a yëngal nag danoo bañ mu sànni liir bi parce que waxi dof lay wax bu demee ba naan bu ngeen siluise wut ma jox armée bi yëf yi bu ma jox armée bi yëf yi kon dof gi may wax ci soxna Bator lu am la nabuur mosal nu boole ci aar nu te gaaw teggil lii di nekk ay layaam layaam amu fi Sonko leen ndax waxu yiw ndax juróomi isib alxuraan lay ndekkee mhm. ma koy ndekkee Amadou kon bu ma nee nan xeex xam naa ne xeex moo fi sës xeex mindeef la bu yàlla sàkk mu ñëw ci àdduna war a def li mu war a def mhm. xare badar yàllaa ko digle te yàlla moo ne rëbb na ko yee fitna mhm. xare badar lu ko gën a nekk fitna daa am jëlub xeej jam ko nit muy caddi caddi ba seedu guyu loolu fitna na ko féete kaw ba ñu jëlee yonente bi di ko ñaq ñaqal di ko teg da ko su loolu yàlla dana ko génnal xeex ak ñoom mu génn xeex diine taxaw ñun ñi ñëpp ci diine jooju leen tudd ñii tudd Moustapha ñii tudd ñeneen kon diine xeex ko taxawal sëñ Touba ñi fi nekkoon daan nañ julli di woor comme moom mais dafa génn dem jàmmaarloog tubaab bi lank lan ko tegoon ba mu ñëwee yoonu murit tey Touba mooy première capitale démocrate kon lim am xeex ko may te ñun waa Touba li tax ñu mën a ànd ak Sonko xeex xeexanu yóbbu foofa waaye xeexanu ba ci àdduna bi Macky lii mu yor Khalifa Sall li ko rey ragal ak ñàkk xeex ak xongali bët la moo rey Karim Wade moo rey Idrissa lii dundal Sonko taxaw tax Sénégal yëpp nekk ci ginnaaw mooy bañ ak résister lii fi des mooy bañ réew mi même buñ xew xut ba teg Macky Sall ci yoon crédibilité suñ crédibilité day wàññeeku xam nga lu tax ki nga bokkal koñ sax bala ngeen a respecté te dëgg da ngeen di ñamante te Macky lii fi nekk amul lenn lu ko mën a régler lu xeex te volonté populaire bi pression bi daa war a continuer ñu toog ci bopp bi mel ni ku jóg ci góom ndax euh, gis nga population bu ñu reculé comité international bi dañuy reculé te kon combat bi day lase fii mu ñu woo naan ay dañuy waxtaan ak duñ waxtaan muy dialogue bi nañ dellu Sonko buñ ko masa woo waxtaan danaan buñ waxtaanee Bob Marley moo dekkiwaat te kooku lu wax mooy dëgg bu alxuraan jàllee lu gën a dëgg waxi Sonko amul ci réew mi. amul de. wasalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf ñun élection la ñu bëgg ñun élection la ñu bëgg ñun élection la ñu bëgg ñun élection la ñu bëgg ñun élection la ñu bëgg waaw léegi nag gars yi déglu parce que temps bi mi ngi ñuy xoj li ñu dese bëreetul te leader yu bëri ñu ngi fii bëgg nañ dégg seen ay kàddu donc ngeen may ñu ñu saafonte ak ñoom ñu dérivé leen ay message su ko defee ñun ñëpp bu ñu ñibbee ñu am lu ñu yóbbu mën a continuer sensibilisation bi mën a wéyal xeex bi baax na. waaw ah, jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, jërëjëf donc on va sans tarder donner la parole au doyen Mamadou Mbodj coordonnateur de F24 et ngeen ngeen jàppale ñu strat bi dafa xaw a woyof bépp leader buy ñëw moom dong mooy yéeg. vraiment garde du corps yi nañ ko xamee noonu leader buy yéeg moom kese mooy yéeg et au titre des aînés le doyen le au titre des aînés nous donnerons ensuite la parole au doyen Madiaye Mbodj mais très sincèrement ñu tàmbalee ak hymne national bi dëkk bi nekk nii neexuma mais dama koy ñaawul parce que Sénégal réew mu ndaw la Sénégal amul ay ressources yu bari mais dañu respecté woon ndax suñu démocratie Sénégal dafa am démocratie boo xamante ni en 2000 bi Ablaye Wade gagné Abdou Diouf Abdou Diouf daf ko jox réew bi ci fànn fànn yu rafet en 2012 également bi Macky Sall gagné ab euh, Ablaye Wade Ablaye Wade jox ko réew bi ci fànn yu rafet waaw dañoo tàmbali ak euh, hymne national ñu ngi ñaan ñu teewlu parce bi ñu nee report ba tey am na ay ndaw yu fi gaañu te mënuñoo tàmbali te fàttalikuwuñu noonu donc ñoo leen di ñaan balaa hymne bi di retentir ñu daal di def une minute de silence pour ñi nga xamante ne ñëpp ñoo wàññeeku héros yi nga xamante ñoo wàññeeku sàmm. suñu àq ak yelleef ñu sàmm suñu charte nday réew donc ñu leen di ñaan une minute pour que ñu mun ko def ac une deux trois ñu ni lundi war na dajante ak les dix-neuf candidats xaw ma ba xam c'est avéré ou non mais dialogue bi nga xam ne dafa doon wax bëgg cee boole ak les les recalés ak les soi-disant spoliés yooyu na ko teg fële les dix neuf candidats na wax ak ñoom ñu xool ñu xool date bi nga xamante ni moom moo baax ñu choisir ko Sénégal yi dem voté choisir date bi nga euh, élu président bi nga xam moom ñu bëgg ñu denk ko suñu réew mu doxal suñu réew Sénégal dañ ko nawoon Sénégal dañ ko joxoon cër ou niveau national et au niveau international te loolu waral leen waral la ko woon pour démocratie bi nga xamante ni ñu daal di tàmbali ak hymne bi su nekkee régie bi hymne bi pare na Alors, deux, trois. Pincez tous vos corps, les balafons. Le lion rouge a rugi devant, devant la brousse. Drombon s'était lancé, les ténèbres, soleil sur l'enterreur, soleil sur l'entespoir. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée, fibre de mon cœur vert, contre épaule, mais plus que frère, Sénégal debout, unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt, salut Afrique, dañu am fayda dañu am fayda dañu respecté suñu Sénégal suñu société yëngatu na suñu société yëngatu na ñun dañu am fayda ñun dañu am fayda dañu respecté suñu Sénégal ñun ñun maa ngi jox doyen nag jërëjëf. asalaamaaleykum mbokk yi asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di jégalu ci retard bi ñu ngi leen di jaajëfal ci teeraay bi kilifa yi nekk yëpp. muy troisième âge jële ko ci doyen àllakan muy euh, ñoom Madiaye Mbodj ak docteur Diop ak ñi fi teew yëpp leader yi candidat yi fi ne ñu ngi leen di jaajëfal gis nañ seen teewaay Déthié ñëw na waaye dafa am dëj moo tax mu jóge fii donc wax ji du bari li ñuy wax rek mooy benn mooy sénégalais yi sonn nañu sénégalais yi tàyyi nañu sénégalais yi yàkkamte nañu 2 avril ba Macky Sall jóge fi sénégalais yi leen lañ dégg moo ñu dem élection pour ñu dem élection nañu jàpp bés bi avant le 2 ñu dem élection sénégalais yi tànn ki leen neex jërëjëf jërëjëf jërëjëf nañu def élection léegi nag bi ñu demee élection ci yéen a des ñu jëlul carte yi na jël seen carte ñëpp nañu vérifier bu fekkee fi bi génn na ndax ñu ngi ji bu bës baax na ñëpp voté ji bu abstention na ñëpp voté ji ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan Sénégal am jàmm. merci doyen Mbodj doyen Madiaye Macky Sall Macky Sall Macky Sall Macky Sall libéré libéré libéré. Et notre doyen, notre maire Aïda Mbodj se dama ne bu fekkoon ne état de droit le président sortant Macky avant la fin de son mandat aurait dû traduire devant la justice pour haute trahison. Macky a juré de respecter la constitution et les lois de à l'article de la constitution. mais il a trahi son serment et il a fait un parjure. Pour cela, il doit être devant la haute de justice. Macky a validé la procédure d'une loi constitutionnelle qui, qui viole la Constitution et qui reporte les institutions et qui prolonge son mandat. Cela n'est pas acceptable et nous ne l'accepterons pas. les jeunes de ma génération qui a l'âge dans les années soixante dix ñun la daan wax bu ñu yaakaare woote réew mi dina wéy ci jaam bu ñu yaakaare woote réew mi dina wéy ci jaam mais tey qu'est-ce qu'on a quest